Jay Faye euh, before you your your salutation before you you talk to euh, one euh, more in the Youssou Ndour waaw waaw toog daal mm-hmm. Mm-hmm. oui no Youssou Ndour he's a legend xam nga ñëpp ko xam surtout moom he's a big inspiration for me big big inspiration musical moom pratiquement def na lépp def na lépp te ni ñu koy def ba léegi xam nga macha allah vraiment man moom I'm very you know he's a big he's a big am am am come back <laughs> uh, li ma doon bëgg wax rek uh, waxoon naa ko yeewu leen ma koy waxaat rek uh, mooy ki nga xam ne. képp koo xam ne doomi aadama nga. Mm-hmm. Youssou Ndour dafa mel ni dafay ñëw di wax ak yow. say problème mm-hmm. balaa nga koy xam nga am problème ngay déglu Youssou Ndour ak indi situation boo munti nekk surtout nag eh, ñun jigéen ñi ah, lañu teg ci ah, suuf xam nga dafay daf lay daf dafa mel ni comme koo xam ne eh, he's a therapist ah therapist la kon kooku mooy thérapeute mm-hmm. yeah he's a therapist ba pare nee naa intégrité moo ko may li mu am intégrité nekk na benn keppaar boo xam ne képp koo xam ne danga takk Youssou Ndour wala sax ñu boole Youssou Ndour si sa si sa identification mhm. euh, da ngay am intégrité boobu noonu par force soo koy roy nga am intégrité bi like everything about Youssou Ndour macha allah macha allah macha allah euh, intégrité bi euh, dafay law fépp mhm. soo nee Abba mhm. Abba joxoon nañ la cër mais léegi lañ la gën a jox cër nga wax Awa Gaye joxoon nañ ma cër mais léegi lañ ma gën a jox cër di di même chose keneen ak keneen you get it kon kooku mooy Youssou Ndour yàgg fi lool te wér bu ñu laajatee ci Youssou wax ci li nga xam lépp euh, duñ la laaj ci Youssou nga wax ci daal di doog ñu dem ñëwaat nga waxaat ci Youssou waxal li nga xam lépp ci Youssou dëgg la no problem <laughs> doom juddu Youssou loolu li nga wax li inda geret <laughs> inda xam loolu ak ma bàyyi la ak ki nga xam ni moom mooy euh, Daouda Faye Daouda euh, sama rak la euh, he is my nephew mm, and my little brother waaw he living of America donc bu jógee ñëw fii donc ñu invité ko ci plateau Weekend Start mu nekk xale boo xam ne Amérique xam nañ ko et puis xamme nañ ko xam nañ li muy def ñu ngi koy reconnaître mais moom dafay xeex pour Sénégal moom euh, day bañ sax euh, loolu moom Sénégal la bëgg Sénégal lay xeexal. Mhm. donc Awa Gaye mu dégg tuuti olof nag. ak anglais bu bari. naan dinañu participer ñun ñëpp mais yàgg gi naan yéen a ci gën a waxtaan. loo ma ci xeebe <laughs> ñu ngi lay nuyu. oui asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp euh, maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñëpp xam nañoo xam ne ñu ngi si daan émission bi tamit. maa ngi leen di remercier tamit pour invitation bi vraiment kontaan naa trop. kii olofam bari na de. non <laughs> non bariwul <laughs> maa ngi essayé rek maa ngi essayé mais. mais man yaa di fay laa tudd di fay Daouda Faye. Euh, yaa États-Unis laa I lived there my whole life pratiquement. thank you <laughs> I lived there my whole life yeah euh, I do euh, afrobeat rap hip hop R&B man moom lépp laay def quoi. ok lu ma lu ma feel rek loolu laay def so man lu ma woo sama bopp lu ma woo sama bopp rappeur wala chanteur man. lu ma feel rek laay def so. ok yeah c'est ça. ok mais lan moo la indi ba ngay def li nga xam ni mooy musique quoi. musique dégg naa ñu lay woowee icône bu bees bi na ah. maa ngi dégg loolu. <laughs> oui so pour musique euh, man dama yàgg bëgg bëgg musique dama yàgg bëgg musique depuis bi ma nekk xale. Euh, dama doon joué sa instrument bu ma nekkoon euh, like when I was when I was young like I used to play many instruments so mm-hmm. so loolu la mais commencé gu ma musique dama ko commencé bu ma nekkoon université. ok ma nekk sama benn xarit li ñu doon waxtaan benn jour rek ñu déglu musique ñu ne. quand you bind benn freestyle nit ñaar yëpp nañu xool am nga freestyle yàlla si kan moo free kan freestyle moo gën a daax quoi like who has a better freestyle mm-hmm. am na ma bind freestyle moom mu freestyle après euh, un jour man ak sama copain yi ñoom ñëpp xam nga ni ñëw freestyle bi ok so ma ma ma freestyle et pour man sax ñoom ñëpp di may reetaan xam nga di ma tuween parce que sama gars yi noonu ni mel quoi mais ñoom ñëpp dañuy noppi ma ne waaw ok am a am nag depuis boobu mu ne ok xam nga xam nga essayé quoi xam nga dem studio xam nga commencé di bind tamit sos yeah depuis boobu xam nga maa ngi maa am naa suñu singles euh, ñetti so yeah depuis boobu laa ah, suñu olof bi euh, dañu ciy def ay soo yu bari euh, dañuy làkk olof di wax soo yu bari ay soo da ngay dem ba ne ak ay yu waaw waaw waaw waaw waaw so I like ay so I ay ok ay ay you so <laughs> so xam naa mooy boo waxee bay bëgg a tëb so loolu la donc am na solo donc ah, boobu nga commencé def mu mu musique aw gay xale la boo xam ni dañu koy commencé wax. Mm. Akon future Akon. Yeah, man, man, that was my first question. Lan mooy sa relationship ak Akon because the moment I saw you, uh, it's like um, you have the air of uh, Akon. Oh really? Yeah. So have oh, you guys wow. ever met? What's your no. relationship? No, Akon, we never met. Nah, Has he ever inspired you? No, no, yeah, he's inspired me very, okay. like very much. Man, man damay déglu son Akon sax daf may daf may remind bu ma nekkoon xale quoi. bu ma nekkoon xale surtout surtout bu ma nekkoon fii bu ma nekkoon xale parce que des fois dama la ñëw pratiquement chaque année chaque si été bi xam nga. so damay déglu son rek daf may remind xam nga temps yooyu bu ma nekkoon xale yi nekk jeune so man damay déglu son mi rek daf may inspiré pour ma créer. which song was your favorite among her? moom I'd say Mam uh, Af Mama Africa. can you can you give us a little acapella of it maybe freestyle. <laughs> bu baax a baax Balla. Balla yow maa la gën dégg anglais de. Ah, nañ dem uh-huh. ay ci utal looñ ci may rek ñu xool. ok. so much love to share. Sweet blackness, oneness, so aware. So much love to share. Hey, Let them know you listen now. Mama Africa, so much love to share. They're gonna go away. Mama Africa. yeah, <laughs> yeah. It's so cool, yeah. Like Akon, he's a big, he's a big inspiration for man. Man, he gets apart from like just pop music doesn't mean that. Mom, hunger. He's doing many good things for African culture. Yeah. He definitely put Senegal. xale pour wane Sénégal tamit si monde bi quoi te loolu moom gën a neex si moom loolu moom gën a neex si moom pas juste musique. Mm-hmm. yow yaa ngi wax bi ma nekkee xale bi ma nekkee xale. Mm-hmm. kon bi ma nekkee xale bi ça veut dire que yow ñaata nga am. ñaata. <laughs> kii booy la kii dafa judd booy la moo tax buy wax bu ma nekkee xale te mu nekk xale ba tey. judd <laughs> non non nag ma xale. moi j'ai vingt quatre ans. oui oui ah vingt quatre ans da ngaa juddoo ko. boo ci ma nekkee he's over eighteen. he's over eighteen. but he's an adult. mais est-ce que ak li ngay bëgg musique you know all the types of music that you mm-hmm. be into est-ce que bëgg nga dugg ci mbalax tuuti wala not really. non man am open comme lu ma wax rek man am free man lu ma fii rek mën naa ko def. waaye yow soo waree woy mbalax. oui mbalax bu toj. Mm-hmm. ah waaw. comme par exemple comme euh, lan. exactement comme let's say comme let's say Youssou if you were to uh, mime any of his songs. Uh-huh. mu da mbalaxis paat. ok which would it be yow ak sa olof and mbalax. man nag sama olof bi man xamuma. <laughs> en tout cas en tout cas indil nañu euh, son boo xam ni euh, moom la ñuy fekk euh, clip bi léegi xool ko dee fay dañuy dem xool nee na way na six cent def na trois clips donc dañuy dem xool ñun biñ ci taamu muy ci kaw ñu teg ko xool ko te ñëwaat léegi yeggaleeg moom ay projet am yeggaleeg moom lan lay wàcc pour le Sénégal ak pour Amérique bi nga xam ni moom la nekk nañu dem xool ci kaw te ñëwaat léegi ci plateau Weekend Start ay merci beaucoup euh, merci à la régie donc merci euh, di fay la ñu koy wax doomu Sénégal bu nekk Amérique di fa dund ci kaw ngeen amoon noonu doonu ko seetaan di fay euh, ci kaw. inspiration bi fan la jógee ak le nom. ok so si kaw so si kaw mooy like I want to be at top. ok mu nekk si kaw. ok so son boobu dama ko créé parce que a nga maintenant like after after college after university xam nga. commencé naa liggéey xam nga commencé naa liggéey et tout. Ah, am xaalis quand même. <laughs> <laughs> damay essayé dama doon liggéey xam nga benn jour ma nekk si bureau bi ma xalaat xam nga dama bëgg xam nga bëgg a gida a git wa xaaya la quoi ma bëgg bi so mu ne xam nga xam nga créé benn son bu tudd si ko so das idée boobu foofu na ñëw am si son bi loolu laay wax quoi dama bëgg xam changement bi dama bëgg dund comme just get everything I want quoi lépp lu ma lépp lu may xalaat quoi loolu laa bëgg loolu laa bëgg mu ñëw et puis créer le nom ci olof ba pare way contenu way wi nga di ko def en anglais loolu lan la da nga bëgg am public bi ak public bële oui yeah, exactement loolu laay def sax loolu laay def exactement so damay def tuuti rek pour gars yi fii comprendre tamit foofu tamit non day pour ñoom tamit mën a comprendre. so loolu laay def exactement loolu laay def quoi. xam nga public gu fii dañuy bëgg taasu ñoom it. oui <laughs> ay ku ci taasu doo <laughs> yore loxo ku ci seen xol lee doo yow da ngay taasu. kii du taasu noonu. hip hop ak taasu. laaj mën na ko. moom mooy il la boole woon ak kenn yi uh-huh. uh-huh. fi ne xam ne dañuy def mbalax carrément di def ay featuring ñoo xam ne ñu bëri mën nañu ànd ak yow ci sa musique mais en même temps dañuy indi touche boo xamante ne touche Sénégal la would you accept that oh yeah bien sûr bien sûr loolu du la du la kii non non man sama ñëw Sénégal bi sax dama ñëw like dama ñëw first pour def promotion pour sama nouveau single dama ñëw pour loolu ak nag tamit pour am am connaissance ak parce que c'est c'est différent am nga nga wax ak ñoom mm-hmm. nga si tout facile quoi. d'accord moo ma ñëw fii am nga pour am contact ak ñoom. am uh, who are your dream artists that you really wanna work with here? dream artists ah, ma ne Wally. Wally Wally euh, Akon tamit sama dream artist la mais xam naa. moo leen <laughs> dib de sama dream la oui oui. Diba. Ah? mais man non man man ñëpp laa dégg like I listen to them all ñëpp laa dégg quoi. ñëpp ñoom gars yi. wala lyrical Samba Peuzzi. non ñoom ñëpp man man d'accord naa si ñoom ñëpp quoi. am na solo am na solo so the, the style of mm. music you do because maa ngi gis the video clip uh, it's it's it's very nice who are the production uh, team who is uh, behind you uh, really mm-hmm. uh, supporting you. ok so am na sama staff ñoom am na ay gars yoo xam ne fii la ñu nekk am na ay gars yoo xam ne état. ñoom maam As ñoom Papi Gaynde. <laughs> yeah ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñoom ñëpp vraiment ñu ngi may ñu ngi may dimbali bu baax parce que xam nga artiste sans staff du dara so maa ngi leen di maa ngi ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax. man mii ci laa bokk man mii ci. non xam naa ba pare xam naa. amee <laughs> dimbali bu baax xam naa ba pare so yaa ñoom nag may ñu bu baax si loolu. Mm-hmm, mm-hmm. en tout cas c'est quoi tes projets lan nga am comme ay projet yi mm-hmm. euh, ak loo xam ni yaa ngi koy waaj euh, ñu bàyyi la euh, nga dem parce que am na yeneen invité yoo xam ni war nañu leen am. so incha allah février bi di ñëw xam nga damay génne sama nouveau EP dafa tudd D Vibes. so incha allah si février bi la génn sama ñëw Sénégal bi sax xam nga. dama ñëw pour def featuring artiste yoo xam ne fii la ñu nekk. so pour loolu la quoi xam nga bi xam am na solo am na solo donc sant di la gërëm bu baax a baax a baax. incha allah oui oui. merci beaucoup merci beaucoup dañu dem euh, ànd ak euh, yow euh, Tarkal la. Hmm, madame dem xooli. ñu toll nii lan nga indi ci actualité lan nga indi ci sa yëf. waaw comme ni ma leen ko waxee da nga demoon benn salle sport de tey. waaw dama demoon Elite Fitness. Hmm. ñu nekk ville dem ñu présenté ma seen ay cours. mais ci cours yi am na ci boo xamante ne vraiment c'est très divertissant donc cours boobu lañ demoon xool muy cours Zumba en même temps xool bi ak yi nga xamante mooy euh, élite fitness mais dañu bëgg a defar suñu yaram parti yi ngeen ciy defar ci bi am naa ko waaw mais yi ñu yitteel soxal ñu maa ngi xaar parce que élément bi jàll te xooluma li ma bëgg yàlla baax na dañ dem xool élément bi ñëwaat